ñu ngi leen ñaan nga nga di jot notification yi ñu nekkoon ak yéen ci xare badar mu di xazwatu badrin il ci waxtaan wi ñu génn gisoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa àndoon na ak waa Makk maanaam àndoon na ak waa Medina dox bi metti woon lool ci ñoom wante ba yàlla nammee ci ñoom ñu noppalu daf leen roof ak ngëmmentu ñu nelaw nelaw yu xóot noppalu lool ca nelaw ya gannaaw si gi yàlla wàcce na taw ndax doon leen jàmmat mar ak ndox mu ñu sangoo taw boobu di xewal ci ñoom tax ñu sangu ca ndox ma naan ca ñu ca amee woon janaaba sangu ca taxoon na itam wàccug taw bi neexal na yoon wi ba seen fas yi mën a dox dox bu baax ba loolu mooy sabab jullit ñi jiitu yéeféer ya ca barab ba di badar taw bi ni mu nekkee yërmande ci jullit ñi noonu la nekkee itam musiba ca yéeféer ya ndax dafa ngirool seen yoon ya yonent bi sallallahu alayhi comme ni ñu ko waxee woon moo jiitu ci wante am na saxaabi yi bu ko wax ne ko nanu fexe ba dem ci mu joxoñ ko benn barab ci benn teen bu nga xam ne noonu mën a root ca ndox ma sakk teen ya ci des yëpp nga xamante ni nag ñoom bu ñu ñëwee danañu mën a xeex ba pare di naan ndax mar e, defet la ci xare ndax kii xare soldaar bi bu maree dootul mën a tee xare wante wax nañ ni yéeféer yi ñëw nanu bi ñu ñëwee ñoom itam campé nanu ci biir waxtaan wi waxoon nañ leen ki nga xamante ni moo songoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon foon yaram wi mooy ki waxoon yonent bi ne ko danga ma gaañ yonent bi ne ko fayul te lam ci jublu moo di ne comme rafet na njort ci ne mën na am bakkanam des ci xare bi moo ne balaa dee daal na yaramam jonjoog yaramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam doon tegtal bu rëy ci yonent bi bu koy wan ne ko ñi mu àndal sopp nañu ko bëgg nañu ko ñu ne nag jamono boobu nga xamante ni ñaari soldaar yi jàmmaarloo nañu war a xeex yonent bi sallallahu alayhi def na xutba bu rëy ci biir xutba ba ñaax na ci nag jullit ñi wan leen ne xeexa leen yëkkati te xeex bi ngeen di def moom la ñuy tuddee jihaad jaamu yàlla bu rëy la benn jaamu yàlla féetewu ko kaw kon na ngeen ko def ci sellal def ko ci muñ yonent bi sallallahu alayhi wa masaana jiital so euh, euh, soldaar yi pour ñuy xeex yi dana def discours aussi wax ne bu ñu dagg garab bu ñu rey mag bu ñu rey borom xam-xam bu ñu rey jigéen bu ñu dugg itam ci dëkk rey ña fa nekk te ñu dara jotewuñu ak ñoom ci wàllu xeex li mu digle daal moo di ne nañu xeex ak soldaar yi nga xamante ni ñoo jóg pour xeex si waaw loolu la ñuy wax ne eh, taal jihaad moo gën a yomb former soldat bi ba mu am discipline def la ko war ci xeex ba te du ci ëppal du ca def loo xamante ni bokku ci waaw kon daal jigéen ñi waruñu leen a rey ci xare borom xam-xam waruñu ko rey ndax xam-xam ba dañu koy jëriñoo mag itam amul kàttanu xeex waaw kon soldaar bi xeex rek la ñu war a rey waaw xeex itam mere ca xeex ba ñëw songub dëkk yàqaati dëkk ba daaneel néeg ya rey bay yaaxar ya fa nekk loolu lépp yàq la lislaam daf ko bañ moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dànkaafu ay soldaaram ñu ne bi ñu jàkkaarloo nag nee na amoon na benn kuréel bu jóge ci yéeféer yi daal ñëw song si malka moom nga xamante ni moom la jullit ñi duy ndox ba mu fees ñoom mar nanu mar gu tar ñëw di naan ca mbalka ma bi leen jullit ñi wuutee nar leen a rey yonent bi daf ne bàyyi leen leen ñu naan ndeke naan googu junj la bu yonent bi doon junj ne ku ca naan rek de ña ca naan ñëpp dañoo mujj faatu ba mu des xakim ibnu xidaam moom rek moo ca faatuwul noonu ñu taxawee jàmmaarloo am na benn saxaabi benn yéeféer boo xam ne yéeféer yee ko yebal ne ko demal nga xool jullit ñi naka la taxawee ñaata fas lañu ñaata gëléem lañu seen mbooloo naka la toll waaw ndax itam jaadu nañu xeex ak ñoom wala dañoo war a wàññeeku gis nga yéeféer yi ni ñu muusee ñu yebal waa ñu wax Umayr ibn Wahb bi mu ñëwee nee na leen jullit ñi ñett téeméer leen ak fukk ñett leneen itam ñaari fas la ñu am juróom-ñaar fukki gëléem la ñu yor mu ne leen wante yaa maachara Quraysh mu ne yéen ngir Quraysh dellu leen ngeen dellu Makka bañ a xeex ndaxkat kat soldaar yi ma gis jullit ñi ma gis seen gëléem yi ñi ñu suuf ay soldaar la nuyu nga xam ne ku jàmmaar la ak ñoom ñu rey la ndax kenn ku ci nekk yaa ngi fees dell ak tooke ñii ma gis de seen lim néew na wante seen kattan bari na kon nag suñu bëggee mucc nan leen fi bàyyi wàcc leen fi ni yàq bu naqari dellu mag sinon bu ñu leen attaqué beneen ñu jeexal kenn par kenn ndax kenn ku nekk ci ñoom am na njàmbaaru rey tëral fukki punkal ci ñun mu ne xanaa gisula leen ñu ngi mel ni ay muuma ndax mer mu tar ñu ngi mel ni ay muuma ndax gëm gu ñu gëm yonent bi alaa tara alaa tarawnahum xurusan laa yatakallamuun yatalammaduuna talammud al afaa'i mu ne xanaa gis leen leen ñu ngi mel ni ay muuma te itam ñu ngi ku mel ni jaani ñàngoor te giñ naa ci yàlla ne amul kenn ci ñun kuy rey ci ñoom te duñu rey ci ñun itam ay jàmbaar lañu nii ma leen gisee daal sama fit mayuma pour daal ñu xeex ak ñoom Umayr ibnul Wahb moom loolu la wax ñu yebalaat keneen mu di abasalema ne ko demal nga xool ndax kii wax ak ñun daal ab buqat la bi mu ñëwee moom itam daf leen wax ne leen raaytu qawman laa yuriduna arrujua ila ahlihim mu ne ah, man de ñii mu gis dund ak dee la ñu yemale xam naa ne sax kenn ku ci ne dina nga bàyyi bàyyee sa njaboot defar sa gannaaw wane ne doo dootoo dellu dootoo dellu si seen bët yaa ngi bleu ndax mer mu tar kon nag li fi gis moo di ne nanu dellu suñu delluwul deneen ñu gañe moo tax Hakim ibnu Xidaam mi di kilifa ci Quraysh bi mu déggee ñaari espion yooyu ñu yebaloon moo di Umayr ibnu Wahb ak Aba Salama ci la Hakim ibnu Xidaam daa jiisoog nag waa Quraysh ne leen nan nanu dellu ci la ñëw nag ci Utbatu bnu Rabia ne ko yaa abal walid innaka kabiru Qurayshin wal mutaacu fiiha hal laka an tudkara bi xayrin ila axiri dahr fa qaala wa maa daaka yaa xakimu bnu xidaam qaala tarjicu binnaas ñu ni Utbatu bnu Rabia Xakiim bnu Xidaam dafa ñëw ci moom ne ko yow Abal Walid parce que Abal Walid moo doon dàkkantalam mu ne ko yow yaay magu Quraysh te itam kilifa nga boo waxee ñu la dégg xanaa bëgguloo am jaloore ju rëy taggu rëy woo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba ba ba di mu ne ko loolu lan la yaa Xakiim bnu Xidaam mu ne ko xanaa nga delloo soldaar si màkk ndax jullit ñi ma gis bu ñuy jàmmaarloog ñoom daneen ñu rey Utbatu bnu Rabiia daal di taxaw xutba xutba bu rëy daal di wax ne yaa ma'shara Quraysh wallahi ma tasna'uuna shay'an an an tulqu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen ngir Quraysh gi naa ci yàlla ni defu leen lu ëpp musiba jàmmaarloo Muhammad xeex moom mu ne ndax ay mbokki kese ñoo daje kenn ku ne ci yéen soo jàkkaarloowul ak sa wéyjur yaa ngi jàkkaarloo ko bokkal ndey ak baay wala yaa ngi jàkkaarloog sa jarbaat wala yaa ngi jàkkaarloog sa nijaay kon ay mbokki kese ñooy xeex te itam bu ñu jàkkaarloo ba roofaloo ba xeex bu ñu noppee di nga gis ku rey doomu baayam wala ku rey doomu ndeyam wala ku rey jarbaatam wala ku rey baayu boppam kon nag dellu leen Makka te ngeen bàyyi Muhammad bàyyee ko ki mbiram mu continuer diineem xëy na du ñàkk ëllëg ci arab yi dana am ku nga xam ni dana leen ko dumaal wante bu ngeen ko bëggee fajal seen bopp dafay nekk musiba bu rëy ndax ay mbokki kese ñooy xeex ay mbokki kese ñooy reyante loolu bi mu ko waxee daf leen wax nag ne gàcce bu ci mënti am nen ma ko teg man Utbatu bnu Rabi'a kon nag nanu dellu waaye bu ñu xeex foofu nag la ñu bari wax ne Utba daal dafa ragal ndax yéefir bu mag bu bon bi ñuy wax Aba Jahl bi mu ko déggee wax jooju dafa mer bi mu ñu meree daal di ñëw ci mbooloo mi ne leen ñun de ay arab la ñu bokk ci giir Quraysh di ay jàmbaar suñu ñëwee ba fii delluwaat loolu dana nekk xas gu rëy ci ñun dana nekk gàcce gu rëy ci ñun daadi di xëcc benn waay bu ñuy wax Amir ibnul Hadrami mi nga xamante ni moom lañu rayoon frère am ca sëriyatu Abdu Abdullah ibnu Jahsh mu di Omar ibnul Hadrami te ñu rayoon ko ci barab bu ñuy wax Naxla moom génnee ne ko yuuxul ndax arab dafa gëmoon li ñuy tuddee feru dima feru dima mooy arab boo masaana tuur deretu mbokkam loolu daf koy def ay wurëy fokk mbokkam moomu ñu tuur deretam ñoom danañu ko fayul looloo taxoon nag ci politique Abu Jahl mu ne Amir ibn al génnal nga jooy sa mbokk ma sa mbokk ma ñu rey te jullit ñee ko rey mu daal di génn na taxaw ci kanamu yéeféer yi daal di yuuxu ne waa amra waa amra ba mu ko yuuxoo nag xol yëpp daal di sot xol yëpp daal di préparé wu waat na ma xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñu guuxaat beneen mer mu nga xam ne Abu Jahlin moo ko def ci ñoom foofu nag la jullit ñi nag def li ñuy tuddee munawasha munawasha mooy ñaari soldaar ñaari armée yu jàkkaarloo di wax te xeex amagul ñu ni ñuy def munawasha am na benn soldaar bu bu génnee ci yéeféer yi daal di ne moom daal dana génn pour dem ca maana mbalka mi nga xamante ni moom la julit ñi defar pour dem naan ca gannaaw ba nga xamante ni yëpp am na wante lu jiitu kooku di dem am Omar ibnul Xataab amoon na benn jaam ci munawasha bi bi mu génnee amir mi nga xamante ni moo di amir ibnul moo ko rey kon Badar mën nañu wax ne yéeféer yaa njëkk rey kañ fa njëkk a rey jaam la ci Omar ibnul amir mi nga xamante ni moom la ñu reyoon ci sariyatu Abdullah ibnu Jahsh moo ko rey ci saasi ñu ne foofu nag ci diggante boobu ñuy defee mun naa wacce di wax di joxalante ay kaddu foofu nag yonent bi sallallahu alayhi mu ngi ci biir arisham te moo di mbaar mi ñu ko defaral saxaaba yëpp ñu ngi sàppe taxaw di déglu ndigalam diggante boobu nag nelaw këf na ko fi moom yonent bi sallallahu alayhi ko nelaw këfee nag mu gam-gam le nelaw tuuti daa di yeewu ndax moom bët yeey nelaw waaye xol ba daawul nelaw foofu nag la ko yàlla won nag yéeféer yi ci biir nelawam ci gént mu wan ko yéeféer yi tuuti lool ci nim leen gisee ci gént gi nee tuutiwaay boobu nag mu yeewoo lim ko firee moo di ne tuuti gi mu gis soldaar yi yéefir yi tuuti ko loolu moo koy wan ne ko amuñu benn njariñ loolu moo koy wan ne itam bu ñu xareek ñoom danañu gañe loolu nag yonent bi daal di jóg génn ci arish bi daal di ñëw nag wax ko saxaaba yi ne leen a ah, yàlla wan na ma leen léegi bi ma nelaw kafe yàlla wan na ma leen wante nag ñoom tuuti nanu lool ni ma leen gisee loolu nag li muy wundu moo di ne eh, bari nanu waaye amuñu kàttan waaw beñe la rek bu ñu bu gonflé wu da ngay foog ne ci ci biir dëll na fekk dara nekku ci moo tax mu ne Seydina Aboubacrin moo nekkoon nag moom ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di génn wax ak soldaar tàllal loxoom nag daal ñaan yàlla ne ko allahumma inni anshaduk ahdaka wa waadaka allahumma in tuhlik hadihi al asabata al yawm fala tu'bad mu ne ko yow sama yow sama borom wóllëree gi ma seq ak yow ak dig ma digoon maa ngi lay ñaan ñii kat tuuti nañu ñetti téeméer yi ak fukk ñetti tuuti nañu tuuti nañu lool wante ñooy sa ñooy sa njaboot bu ñu alkoon nag boo leen seetaane ba ñu faatu dootoo amati ku la jaamu ci kaw suuf foofu nag am na ku ñuy wax aswad ibnu abdil asad moom ab yéeféer la mooy ki ma doon junj léegi moom moo génn ci rangu yéeféer yi rek daal di wax ne uaahidullaha la ashrabanna min xawdihim aw la ahdimannahu aw la amutunna duuna mu ne fokk ma dem naan ci seen mbalka ma wala ma mab ko wala ma dee wuute ko bi mu jógee armée wu nag wuti ma ne def cey naani Hamzatu bnu Abdil Muttalib mii nga xam ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàmbaar yi jàmbaar yi ba mu ko gisee muy ñëw def ne kii def ñu yàpp bi mu ñëwee jublu si jàmbal kama Hamza daf ko kar waññi ko mu bañ Hamza dóor ko benn tànk bi damm muy watatu ba agsi ci mbalka mi naan ci fa la ko Hamza fekk daal di koy rey kon gannaaw ga ñu reyee jaamu Omar ibn al-Khattab ci jullit ñi yéeféer bañ ca teg moo di Aswat ibn Abdil Asad foofu nag la ñu def li ñuy tuddee al mubaaraza mubaaraza nag moo di leewaatoo foofu nag la eh, Utbatu bnu Rabia am mi nga xam ne moo jiite woon xare bi di magu Quraysh moo génn daal di wax yëkkati kàddoom ca kaw ne yow yonent bi waaw ñoom sax daawuñu ko woowee yonent bi yow Muhammad lañ ko doon wax ne ko yaa Muhammad génneel ñett na ñett génn ci yéen ñett génn ci ñun ñu léewatoo mu am génn ku ñuy wax awf moo génn ak ku ñuy wax Muaz ak Abdullah ibnu Rawaha wante ñoom waa Medina leen ci waa Ansaar la bokk bu ñu génnee Utbatu ibnu Rabia daf leen laaj ne leen man antum yéenay ñan ñu ko ñun waa Medina la ñu Utbatu ibnu Rabia ne ne ne leen soxlawuma leen ñi ñu soxla moo di ay ñu bokk ci giir Quraysh suñuy mbokk la ñu soxla wante yéen soxlawuñu leen daal di wax yonent bi waxaat baatam ca kaw ne ko génneel ñi nga fonk ñun ñu génnee ñu ñu fonk ñu jàmmaarloo foofu nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wa nag Hamza ne ko jàmmaar lool ak Shayba Shaybatu Rabi'a ci la yebal nag Ali ibn Abi Talib ne ko jàkkaarlool ak Walid ci la yebalee nag Ubayda tubnul Xaarit ne ko na jàkkaarloo ko Utba tubnu Rabia leewaatoo boobu nekk leewaatoo bu métti ndax Hamza tubnu Abdul Muttalib ci saa si la tëral Shayba tubnu Rabia yàgguñu dara Seydina Ali mi nga xamante ni ñu ngi koy dàkkantalee xaydara te xaydara moo di gayndeek njëloor gaynde goo xam ne kenn du ko suuru moom itam ci ay minutes yu néew tëral na walit ci suuf mu des Utbatu bnu Rabia ak Ubaydatu bnu Xaaris ñaari mag lañu woon ñoom ñaar nag bi ñu jàmmaarloo ku ne jam na sa morom wante euh, sayiduna Hamza ak Ali ibn Abi Talib ñoo gaawantu daal di ñëw yëkkati Ubaydatu ibn al-Harith daal di jekkale nag Utbatu ibn Rabia moo tax e, ci mubaaraza boobu nga xamante ni moo di wato boobu ñu fi wax léegi jullit ñi gañ nanu ndax yéeféer ñett ñañu yebaloon ñoom ñëpp faatu nanu Utbatu ibn Rabia mi am na doomam ju nga xamante ni jullit la woon mu ngi ca rangu jullit ñi gis nañu tëral baayam rey ko wante itam ngëm gi nekk ci moom moo tax bu ñu jaawale nag yéeféer ak jullit jullit su dee jullit su lislaam dee xare ba ñu rey ci sa baay te mu di yéeféer kooku dara nekk ci waaye nag ñaari jullit nag sa baay dee jullit nag sañuloo ko bañ sañuloo ko noonu waaw sañu loo ko bañ sañu loo ko noonu moo tax ñu ne Iblis fekke woon na xare boobu moom Iblis bokkoon na ci ñi doon dugal waa Makka pour ñu xeex saa bu ñu demee ba nara a découragé ci xeex bi Iblis daan na soppali ku jëmm yor jëmm Suraqatu bnu Malik waaw Suraqatu bnu Malik bnu Jushum moom la daan jël jëmmam di ruux yéeféer yi nag pour ñu xare moo tax moom Iblis daan leen wax daan na wax ne laa xaaliba lahum min annaas daan leen wax na leen yéen kat kenn mënu leen ci nit ñi yéen a fi ëpp doo yéen fi ëpp doole yéen fi mën kon nag bu leen bu xat bi nga xamante ni yàlla yebal na malaaka yooyu pour ñu ñëw ndax wax nañu ne malaaka yi bu ñu ñëwul woon xare bi dana metti lool ci julli ji ndax ñetti téem ñetti téeméeri soldaar ak fukk ak ñett ak junniy soldaar ah dañ ne ñaar dañ ne eh, mu tooti ñaar du ñett du bëri daal ñaara mën kenn te ñett du bëri te jullit ñi li leen yëpp yi ëppee bari na ay ñaan gi yonent bi ñaan tax na yàlla wàcceel ko soldaar yu bari soldaar yooyu nag ay malaaka lañu loolu lañu wax ne bi yonent bi toogee ba nga xamante ni songoo rek a ci des nee na am na ngelaw lu for lu upp nekkete boobu yonent yàlla jibril moo doon ñëw ànd ak ay junni ci malaaka ñu jékki-jékki beneen ngelaw upp ndeke boobu Mikaali Mikail moo doon ñëw moom itam malaaka yu bari mu jékki beneen ngelaw upp ndeke boobu Israfil moo doon ñëw moom itam ànd ak malaaka yu bari loolu la yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko iz taqulu alan ya'tiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم, أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذل منذل منذلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين yonent bi yàlla ngi koy fàttali ne ko metti woon ba nga jaaxle lool fu ne nga fay xool di tàllal sa loxo di ma ñaan man nag maa la jox lu tolloog ñetti junniy malaaka yoo xam ne maa leen wàcce man yàlla maa leen wàcce ngir ne su ngeen muñee ngir ne itam su ngeen ragalee yàlla ba bañ a daw man yàlla dana leen dolliwaat yeneen juróomi junni malaaka yoo xamante ni su ngeen leen gisee nañuy xeexee da xam ne ñee ay malaaka lañu wante duñu ay nit moo tax am na benn waay boo xamante ni moo nettali wante ñu ngi jële nettali bi ci abla ibnu Abbas nee na waa jooju mu ngi bokk ci Bani Gafaar mu ne mu ne ñëwoon na Badar ànd benn doomu bay taxam ñu yëg ci ko benn montagne nee na jamono boobu moom yéeféer la woon doomu baayam boobu itam yéeféer la woon nee na ñu ngi taxaw ci kaw montagne bi di seetaan xare bi nee na ñuy xool nag kan moo war a gañe nee na foofu ñu toog rek ci kaw montagne bi nee gis nañu benn niir niir woo xamante ni nee ñu ngi ciy dégg ay woyang woyangi fas di ca dégg dégg it di ca dégg itam nee na ay keleng-keleng weñ di ca dégg itam ay baat nee na ñu ngi koy dégg ci biir ni niir wi nee na naka laa gestu rekk sama doom baytax boobu nee fekk ko mu deese du guy nee na may xool niir wi di xool niir wi nee na ba gis niir wi teere ji ca yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaabaam nee na may xoolaat niir wi niir wi di dellu si di dellu si nee na bi niir wi delluwaatee dem digguma ca dara nee na loolu nag moo ma wan ne ma kon niir woowu moo doon avion bi nga xamante ni moo sëfoon malaaka yi doon leen indi ah, wante nag doomu bàyyi taxam boobu dee itam loolu itam junj la buy wane ne malaaka yee ñoo ko rey mu mel ni kon malaaka yooyu bi ñu ñëwee xeex nanu xeex bu metti xeex nanu xeex bu metti lépp yàlla nettali ko yàlla nee na yow yonent bi wa ma jaalahu llahu illa bushra lakum wa li tatma inna qulubukum bihi wa ma nasru illa min indi illahi al azizi al hakim li yaqtaa tarafan min alladina kafaru aw aw yakbitahum fa yanqalibu xaibin moo tax yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu ma la ko defalee dama bëgg rek bégal la looloo tax dama bëgg itam seen xol sedd seen xel itam mën a dal ba ngeen mën a am sago bu ngeen xeexe euh, mu mel ni yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi ne ko yónni gi ma yónni malaaka yi pour ñu xeex si du dara pour bégal la ak seen xol mën cee dale ndax man yàlla ma am ndimbal dama bëgg itam rek alak ci kuréel boobu nga xamante ni ñoo jóg pour nam ma fay diine yàlla ji ba ñu mujj dellu di way perte la ñu mébatoon doon ko wut ñu ñàkk ko bañ ko am loolu moo tax seytaane bi nga xamante ni mu ngi xeex yor jaaseem di xeex yore melokaanu suraqatu bnu nu bnu joxsum foofu la nemmee ko moom seytaane ne léegi kat am na ci mbooloo mi ñoo xamante ni duñu ay nit ay malaaka lanu ba mu gisee malaaka yooyu di wàcc moom seytaane ci la ne waqet daw nag bi muy daw lii lii la doon wax doon na wax ne inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna yéen yéeféer yi kat tey seet naa wicc ci yéen ndax lii ma gis kat yéen gisu leen ko ndax malaaka yi bi ñu wàccee dañu yor jëmmi nit waaw sol nag yére yu weex tàll wax na nu ne am na sax ku ko toppoon di Xarit ibnu Hisham ndax dafa foogoon ne Suraaqa la wante daf ko mujj dóor ci dënn moom seytaane mu daanu mu daal di daw ne waqet daal di dugg ci géej gi nag ne mes kenn gisatu ko mu mel nii e, seytaane ngoog saa su dugalee nit ba nit dugg mu génn ba set wi ci bàyyi ko ci mooy noon bi nga xamante ni ak birub noone nit rek la bañ lu koy yàqal rek la bëgg luy tilimal diggante nit ak boromam rek la bëgg yàlla nañu ci yàlla musal moo tax ñu ne keroog seytaane tuuti na xeebu na ñu ne itam bis boobu seytaane mer na lool ci ñaari bis la seytaane ma sa mere mer bu tax moo di bis boobu nga xamante ni gis na foogoon na ne yu màkk yi dañuy ñëw rek faagagal jullit ñi mu jeex ba mu ñëw di leen jàppale far yàlla wàccee renfort malaaka keroog seytaane tiit na mer na tuuti na xeebu na ndax pexeem jubul yaakaaram tas na wax na ni itam taxawaayu arafa yërmande ba fa yàlla di wàcce ak jéggale bi yàlla di jéggale bakkaar yu rëy yi ndax taxawaayu arafa day mabb bakkaar yu rëy yi nee na nag ku yàlla baaxee nag ba nga taxaw arafa ne ba fay wàcc ak bàkkaar yu rëy ya yàlla di jéggale nee na loolu dana merloo seytaane ndax seytaane dafay sawar lool nit def bàkkaar bu rëy ndax bàkkaar bu rëy nag dafa doy waar moo tax ñu ne bisu badar keroog ba seytaane gisee Seydina Jibril mu nga jiite mu nga jiite malaaka ya ñuy wàcc mu mel ni dexyatul kalbi dexyatul kalbi nag moo doon saxaabi yu bu baax ba nga xam ne bu jibril daan wàcc melokaanam la daan jël wax na ne bi nga xamante ni ñaari armée yi songoo nañu ba xeex bi commencé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati na ñaari loxoom jëme ko ci kow nee na yaa ngi dégg baat ba mu ngay ñaan yàlla ci kaw di ñaan yàlla nan koy yàlla ndimbal la ma digoon yàlla ndimbal la ma digoon ay suñu boroom Seydina Aliou wax na ni jaabante na ci diggante bi léeg-léeg mu xeex ba jikki ñëw di surveiller si yonent bi di xool ba xam naka la nekk ndax seen cofeel ci yonent bi nee bu ñëwee mu ngi fekk yonent bi mu ngi tàllal loxoom rek di ñaan yàlla nee na dégg na daal ñaari tur yàlla mu ngi koy jabantu ci ci ci làmmiñam di wax naan yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum dañul di wax baat boobu ba na jullit ñi di gañe mu ne génn na sax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak yéeféer di wax ne shahatil wujuh nee na itam doon na wax itam ne sa yuhdamul jam wa yuwalluna dubur foofu nag bi nga xamante ni tampaloo bi metti na xeex bi metti ba nga xamante ni léegi xare bi tàng na jër tibb na suuf nag suuf soosu nag yàlla ko wax ne ko na ko tibb sànni ko ba mu sànni suuf sa suuf sa dafa mel ni maanaa dafa mel ni ay bomb yuñ leen sànni mu dugg ci seen bakkan yi dugg ci seen bët yi mujj na nag benn yéeféer mënatul a dékku taxaw jàmmaarloog jullit yi ndax boo jàmmaarloog jullit ñi am na suuf suy dugg ci say bakkan di dugg ci say bët ba mujj daal ñoom ñëpp ñu ne wàq daw ñu rey ci ñoom ñu bari jàpp ci ñoom itam ñu bari wante lu jiitu xare bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dajale na jullit ñi ne leen amul kenn koo xam ne danañu ko rey ci yéen mu muñ deseeg ngoram ak pas ak ngëmam sellal lool ci ni mu doon jihaate dawul lu dul ba dafa jàmmaarloog noonu amul kenn ku ñuy reyee noonu lu dul ba yàlla bu sa ruux di di tàqalikook sa yaram ñu dugg aljanna bi yonent bi waxee wax boobu nag ci la benn saxaabi bu ñuy wax euh, Umayr ibnul Xamaam al ansaari moom ci wàll ansaar la bokkoon boobu mu ngi yoroon ay tàndarma ci loxoom doon ko lekk bi mu déggee yonent bi ne ku ñu rey ci yéen àjjana nga jëm mu ne eskay eskay daal di sànni nag tàndarma ya daal di wax ne ma bayni wa bayna an adxula aljanna illa an yaqtulani haula mu ne ndeke li dox sama digganteeg aljana moo di rek sama moo di yéeféer yu bon yi rey ma daal di sànni tàndarma ya nag daal di wuti nag yéeféer yi ba ci jaaseem commencé xeex wax nanu ne ci bis boobu lanu ko rey moom Umayr ibnul Xamaam al ansaari mu daal di nekk nag martyr daal di nag bokk ci ñi nga xamante ni ñu nga àjjana yàlla di leen fa bégal kon mu mel ni ñaar deegum na mu di Mihja moom nga xamante ni jaam la woon ci Omar ibn al moom la ñu njëkk a rey ñu teg ci itam kii di Umayr ibn al ba nga xamante ni xeex bi jeex na nag wax nañu ni yéeféer yi rey nañu ci ñoom lu tolloog juróom-ñaar fukki yéeféer dee nañu waaw juróom-ñaar fukki yéeféer de nañu ñu jàpp ci ñoom itam juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay prisonniers jullit ñi nag wax ne ni fukk ak ñeent ñoo ci faatu juróom benn yi ñu ngi bokk ci muhajiroon yi juróom ñett yi nag bokk ci wàllam saa wax ne ni nag ñi nga xamante ni ñoo faatu ci yéeféer yi moo di Utbatu ibnu Rabia doon kilifa gu rëy doon capitaliste bu rëy faatu na ci ak Abu Jahlin moom itam faatu na ak Walid ak ku ñuy wax itam Umayya Umayya mi nga xamante ni moom moom moomoon Bilaal moom itam ca la faatu loolu nag def na métit lool ndax am na ndaw suñuy wax hind jigéen la woon doon yéeféer di soxna ci abu sufyaan hind moomu baayam ñu ko reyee ñu ngi ko reyee badar ndax baayam moo doon utbatu bnu rabia rey nañu itam frère am moo di walid euh, loolu taxoon nag wax dëgg yàlla def ci moom ak mer mu nga xamante ni nee na dal fokk mu faj fokk mu fayu te nee na kenn rayul ay mbokkam kenn rayul bàyyam ku dul Hamza loola taxoon mer mi yëpp nag mu sëpp ko ga ne nag nu mu mënti def dana fayu loolu nag tax ñoom waa Màkka ba ñu delloo ñuy waajal nag beneen guerre guerre boobu la ñu tuddee xadwatu uxud muy xare bu rëy moom itam incha allah fas yéene nañ cee ñëw ak yéen wante bi nga xamante ni nag jàpp nañu prisonniers yooyu nga xamante ni ay jar-jar lan dañ leen a jàppoon bi ñu ñëwee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam na ak saxaaba ya ne leen lan mooy seen xalaat ci ñi nga xamante ni jàpp nañu leen wax ne ci jàpp bokkoon na ci ñuy jàpp abbas mi nga xamante ni bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw koo xamee yonent bi abbas moo di bàyyam yéeféer la woon bokkoon na ci yéeféer yi ñu jàpp ci badar abbas moom moom lañ doon dàkkantale abal fadl wax ne ni itam bokk na ci ñi ñu jàpp ci yéeféer yu mag yi nadar ibnul xaarit moom itam ci yéeféer yu mag yi la jàpp nañ ko ak ku ñuy wax Uqbatu bnu Abi Muayt ñii ci ñi gënoon noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wax na nu ne itam yonent bi sallallahu alayhi sallam bi nga xamante ni jàpp nañu ñii ak ñeneen ñu dul ñoom ndax ñu jàpp àgg nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñeent diisoo na ak saxaaba ya ne leen lan mooy seen xalaat ci ñii ndax dañ leen war a rey wala dañu war wut ci ñoom xaalis léegi nag loolu nekk waxtaan wu doy waar bu yéeme nga xamante ni wax dëgg yàlla kéemtaan yu rëy ngi ci ak yi ci feeñ ba tax na yàlla wàcce na ci ay aaya dal ci yonent bi tabaarakallaahu loolu nag xam naa ci waxtaan wi di ñëw euh, ci leen koy mottali ndax waxtaan wi fi la waxtu wi yem